ñun biñuy commencé sax di def ñi ci des ñu ko def ay témoins ñu ça fait des mois Nous ngi ci doon dox giro sax ànd nañu moom fii giro ba réunion avec le ministre ba jox des promesses maintenant bu ñu des procédures le président moo joxe woon ay instructions ni ministère man ma salaire mais nous di ñu joxe ni ku ci budget interne nga ce ci du impact fonctionnement ministère mais ministère de agriculture di pêche sport mine tourisme finance fonction publique ñëpp ñu ngi leen si le kiwi, la revalorisation des salaires là mais ñun pas duñ jox ko waaw waaw mais nañ que jox parce que nous, nous gënaloon boobu moo ñu parce que dañ ci travailler des mois et des mois ñi ci des moom facilement seen poste ça passe comme lettre à la poste. kon daa mel ne jafe-jafe ci biir ministère de l'élevage. loolu lay nuru nag. loolu lay nuru waaw moo tax loolu dañ ko gëstu ba mu leer. loolu dañ ko gëstu ba mu leer parce que travailler, yi kenn gënu ëpp leen dignité fii dans l'administration sénégalaise. dëgg dëgg. waaw kenn ëpp leen fi dignité kenn gënu leen sonn balaa nga ko doon xam après ça ngeen ñëw fii def reportage ngeen xool tout le monde sera à son poste nga dem l'ensemble de nos travailleurs la majorité ils sont dans des postes déshérités amul courant ont fay l'UAS. donc lolo. ba ne sais pas mais tey ji un ñuy commencé kii bi ñu ñëw di jàpp suñu ay éléments am sax kuñ ci blessé mais loolu dafa plan d'action bi d'abord dans un premier temps comme déposé une préavis depuis le 19 passé bu a à effet parce que je me rappelle aux travailleurs à certains travailleurs préavis buñ déposé c'est pour couvrir les travailleurs sur le plan administratif et syndical pour bañ ben yat mën dal bu ko le 19 on va arrêter l'ensemble des vaccinations sur le territoire national la vaccination du cheptel que ce soit les ovins les bovins et les chevaux ensuite abattoirs yi dinañ tëj yëpp kenn dootul def inspection ba lu c'est la responsabilité de l'État. Ensuite, les rapports, yi nga xam dañ ko joxe de manière hebdomadaire et mensuelle dinañ ko arrêté. li nga xam ne c'est jëm ci euh, euh, aires air d'abattage aussi dañ koy arrêté lu Loi, lekk sa affaire là. waaw ça ne nous engage pas du tout parce qu'on a des éléments au niveau des ports et de l'aéroport donc loolu nañ ci bàyyi xel. lépp lu fiy dugg ci ndawal ak meew yëpp ñoom ñoo koy contrôler jël ci ay prélèvement yóbbu ko labo yooyu yëpp dañ koy arrêté te itam bañ nañ ba bu mujjee dinañ dem ba grève de la faim sax bañuñu ko ci. parce que lii torox toroxal sax lay gën a jege quoi que leneen mënuñu ko qualifier dafa ñaaw.